tey nag suñu tànk yi ñu ñëw tey tànk njaalu madame le ministre de la femme de la famille du genre et la protection des enfants muy ma man ministre bi ñu dénk njaboot gi dénk ko jigéen ñi dénk itam xale yi ah mu bëggoon lool itam teew fii mais yàlla dafa def métitu ndox mi bi ñu yàlla teg ñu koy nangu dafa nekk dëkk yu bari la laal ba nga xam ne bu tey dafa ne yéen dem leen fii man ma dem fële lépp itam teg ko rek ci fépp la war a dem ñépp ñu war a gis ndax moom loolu lañ ko sant te loolu la président Macky bugg ci moom te itam ci loolu la ñuy dox euh, tànk yi tànku njaal la njaalu madame le ministre mais massawu itam madame le ministre mi ngi massawu waa njaafat yépp di masawu ñi nga xam ne tey lor bi ñoom la dal ci ñoom mais wóor nañu ne bu bu nii ngeen toogee ak niñ ko déggee ci maram le maire lu mu dal dal ci moom yéen ñëpp dal na ci yéen ndax tamit xale bu nekk ci buntu àddina yaayam ak i waajuram am yaakaar lool ci moom yàlla defee ndogal bi dañuy nangu rek mais xam nañ ne métti na ci loolu nag ñi ngi ñi ngi ñaan yàlla mi ko teg te moo ko mën a tege ñun ñu doon ay jaam war koo nangu yal nañu yal na leen yàlla may xol boo leen ko buñee mu dëddu leen ak jàmm te fa mu jëm gënal ko fa mu jóge fuuf tey nag li ma wax madam la ministre dafa yónnee yónnee kàddu njaal yónnee itam ndimbal ndimbal boobu mooy mooy li nga xam ne moom la ñu indi tey mu ne nañ ko teg ci loxo ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekk fii ñu jaarale ko ci loxo madame le maire mi nga xam ne mooy kilifa bi pour wax ne rek tey bu ma yónnee itam ci jimmi jamono bu ko yàlla inditee fii itam dinañ ko dégg mu ñëw fii toog ak yéen wax ak yéen soxna siy ñëw ki jógee fii ba Dakar ñu ngi koy gërëm ba ci kanamu yàlla ndax xam naa yónneti bi ñu ko yónni sawar na ci ndax bu ci sawarutoon mënoon na gàntal waaye comme yónni nañ ko mu jógee foofu ak coono bi ak euh, euh, euh, naaju tàng bi ak ndox mu bari bi mu bàyyi itam yëpp ñëw moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla fépp mu yóbbu bëgg yóbbu Sénégal yal na ko fa yàlla yeggale yàlla guddal fan yi wéral cër yi barkeel njaboot bi barke Seydina Mohamed gré président de la République moom moo moo waral jotaay bi yëpp ak délégation bi mu ànd yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp képp ku fi képp ku fi ñëw gërëm nañ ko di leen ñaanal yàlla yal na yàlla dolli sutura yokkal ñu xéewal yi yokkal ñu wér-gu-yaram yi barke Seydina Mohamed yàlla seeri ne man bu xëyaan euh, samedi ak dimanche bi mu liggéeyut day ñëw ñuy taxale nañu yóbbu kër ga ci maçon maak moom di taxale li ñu yóbbu kër ga loolu ñëpp seede nañ ko mënoon na jàpp ne élève la di ut ay loxo yu nooy waaye loolu du ko def saa yu xam ne bés bu ne xam ne nga eh, jàngiwut day dugg ci dëkk bi di liñetti waar moo xam 1000 francs la am moo xam 500 am la am loolu yëpp nag pour yóbbu kër ga dimbale ko ko kon nag yàlla jëlee na ko fi e moo ko soob moo ñu ko joxoon jël na ko di koy ñaanal yàlla. di dina am tiis mu métti lool. waaye nag say kilifa bu ñu ñëwee jege la taxaw rek yen gi day xaw a oyof te moom moo ñu dal tiis mu amee diisoon na lool su ñun waaye nag bi ñu leen gisee booba léegi samedi autorité yaak ñuy woo wax dëgg maa ngi dégg euh, ñëpp ñëpp ak may woo di ma masawu ñii ñu ngi ñëw ñu ngi woote di masawu kon loolu day olof oyofal yëf yi suñu suñu kaw bu demee woon neneen gisuñu leen dégguñu leen dina métti lool ndax duñu am lu dul suñu bët yi rek di jooy pour jooy kon nag bu ñu leen gisee tey ngeen ñëw keroog euh, ministre ñëw tey itam yow ministre de la femme yónni la nga nekk directrice bi nga xam ne koo xam ne ki nga xam ne yaa yor wàllu euh, kii famille yi yor wàll nit ñi nga xam ne ñoo njaboot gi ñëw doole wax dëgg yàlla suñu xol day day sedd.